Maaleykum euh, Serigne Mbacké Mara le chargé de la communication de l'association Soldats sans frontières comme ni ñu ko xam ne démb ñu gis ci askanu Touba ci ñu xam ne dañ doon fësal seenu naqar ak seenu tiis ci ginnaaw taw yi fi jaar. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, sëñ Mbacké Dieng maa ngi ziare bu baax di jégalu ci tabaski gi nga xam ne jàll nañ ko jàmm di ñaan itam li nga xam ne nii jaamu nañ ko ci lépp. Euh, yàlla nangul na ko noonu ñëpp euh, te defal nu taw euh, taw feex ak taysiir sëñ Mbacke laaj nga laaj bu am solo ñooñu génn gi nga xam ne dañ koo génn takk ay bras rouge di manifeste ndax dafa mel ne am ndox dafa dugg seen kër man jàpp naa ne comme doon yow itam comme doon yow itam di ñoom waaye dama yaakaar ne am na benn nag approche bu ñu waroon a jëkk a def xaw ma def nañ ko am déet nag loolu leeruma waaye jàpp naa ne euh, jaadu na ñu manifester parce que ndox moo xam ne daraan ci barab ñu xëy xëy ndox moom a taawatul ca barab ba ñu wëlbati ko reversé ko ci seen i biir kër kenn ku ne xam na ne loolu neexul kenn waaye nag xaw def nañ xaw ma defuñu waaye su waroon nañoo def benn approche approche bi moo di man dégg naa ñu di ci tudd mairie Touba jàpp naa ne waroon nañoo def délégation ñëw ci mairie Touba su fekkee defuñu ko waxtaan ak ñoom laaj leen lii lu ko waral ba pare. su ko defee nag su fekkee benn saafara amu ci nag wax dëgg yàlla am nañ droit ci loolu nag ndax nag ginnaaw ñoom lañ dëkk foofa lépp dawuñu amum ndox ñu ñëw def fa ay travaux travaux yi wëlbatiku pare foofa amatum ndox ñuy amum ndox cela veut dire que ndox mi dañ koo transféré rek waaye loolu dafa am lu ci am lu jara xam sëriñ Mbàkke gis nga loolu noonu mu naqaree askan woowu noonu la naqaree mairie Touba te lii ma la ciy wax itam lu ma dund la. ndax li tax li ma dund la moo di mbir mi mënoon naa gën a euh, garaaw loolu mënoon naa gën a garaaw ndax li tax mënoon naa gën a garaaw moo di euh, bi nga xamee ne euh, ñi doon liggéey liggéey bi ñëw nañ di liggéey liggéey bi mairie Touba sax moo tax mbir mi garaawul ndax li tax mbir mi garaawul moo di ku ñuy wax El Hadj Ndiaye programme ak ku ñuy wax njañ mbay ak ku ñuy wax Pape Fall ñoom ñoo tax sax li dal. Euh, ñooñu delul maire bi ndax keroog bi nga xamee ne ñëw nañ fekk ñoom di liggéey chinois di liggéey dañoo interpellé chinois yi ndax li tax ñu. jërëjëf Mbacke ci euh, boobu leeral ñu gis ne tamit euh, gis nañ tey bi ñu xëyee ci presse bi wala avant sax ñuy xëy benn communiqué bu xam ne jógee ni ci commune d'arrondissement bu Touba Mosquée bi nga xam ne que ni mi ngi indexé journaliste bu nga xam ne que moo nekk correspondant. Mbacke loolu man li ma la ci wax leen rek la gis nga tasxaru xabaar. Euh, dafa war a nekk un waaye nag dafa war a nekk nit koo xam ne aussi dafay taxaw ci ci dëgg dëgg bu dara raxut loolu bépp taspa euh, taskatu xabaar bu koy def rek euh, yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci yoon wi nga war a jaar waaye nag taskatu xabaar aussi dafay vérifier te léeg-léeg nag nga dégg koo xam ne daf lay wax ne la da ngay dégg mu bind ci mbir te mbir moomee mu bind ba mu cay bind mën naa am fekkewu ko soo ko waxee mooy la ki ma wax wóolu naa ko suñu bilaat nag daan wax ne man de mën na maa wóolu nit waaye mënoo maa imposer nag ma wóolu ki nga wóolu kon ñoom it nañuy gëstu bu baax a baax li ñuy bind dama yaakaar ne moor euh, dafa dafa xëy na lii nii mooy rek li tubaab di wax ne muy goutte bi nga xam ne moo moo moo moo versé vase bi waaye jàpp naa lu mel ni itam daloon na ko fi ci wàllu bi nga xamee ne ñu ngi euh, liggéey ci wàllu màggalu Tuuba yaakaar naa ne joxe woon na information boo xam ne nii jàllale woon nañ ko ci revue de presse jàllale yi woo xam ne jàpp naa ne. Euh, xëy na moo ko wa moo moo loola moo ko moo ko jural lii waaye man daal damaa jàpp ne journaliste yi ak commune bi. en tant que doomi dëkk bi euh, tamit euh, nekkoon ku nga xam ne que ni bari na lu bëri lu nga xam ne yaa ngi koy toppatoo dëkk bi ndax gis nga ndax gis. ok man duma conseil communication maire de Touba bokkuma ci cellule de communication bi maire bi dafa am cabinet. Eh, xëy na peut-être cabinet am loolu ñoom nga ko war a laaj mais man bokkuma ci cabinet bi nga xam ne mooy conseil maire bi ci communication bokkuma ci conseil communication bi itam donc loolu su amee peut-être xëy na euh, am na feneen foo ko war a laajee furut ci man parce que loolu man xawma ci lu bari man daal li ma xam wax naa ko li ma fekkee wax naa ko li ma. def Mbacké Balla euh, suñ dernière question mooy nekk. askan woowu doon fësal seen naqar ndax ñu seen i droit parce que ku gis seen kër yi ne mu mel ne te li fi jiitu ci ay nawet mës ñoo gis ndox. ak waaw askan boobu seen droit lañ nekk ndax nit ko wax ne yow sa kër daawut taa nga xëy suba sa kër di taa da nga xam ne kër gi taa bi muy taa ñàkk taa gi muy taa fee moo ko tax a taa kon am nga droit naqarlu ko wér na lool waaye su ma noon ñoom nag damay jël approche bi laaj lu waral lii ba pare su ma laajee lu waral lii ba pare ma laaj saafara si su saafara si mënut am nag. دك بي دك يرمى